élection yi daal di amee naam sax jot nañ nemmeeku ay jafe-jafe fu mel ni Kër masaar mooy jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko ci yenn bureau de vote yu mel ni Kër Massar nga xam ne Kër Massar dafa amoon découpage bi mu amee découpage carte électorale bi soppeeku constaté woon nañ ko ñëw xam ne ñëwoon nañ pour voter yor seen carte électeur mënuñu woon voter beneen bi mooy li nga xamante ne. amoon na ci Thiès ñu koy wax euh, ñu jóge woon ci beneen région ñu jàpp ne waruñu woon voté foofu te yàlla def ko ci sutura mu jul am problème. mel ni rek bari na lool ñi nga xamante ni nii jotuñoo jël lii di seen i carte électeur jàpp nañ ne war nañu def système boo xamante ne citoyen bu toll ci am carte électeur rek. nga am ko moom la ñuy wax autonome autonome automatiser l'enrôlement des citoyens ayant atteint la majorité électorale. suñu sukkandikoo si ñoom ñi li organisation élection bi daanaka dafa daal di jaar yoon loolu waral ba ñoom ñi ñu ñuy xamal ni fu ne nii deuxième tour mënul am. élection yi euh, tendance mooy que am deuxième tour ci benn tour lay yem.